Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen jàmm ci yëglekaay doore kook ndaje mi nga xam ne rek doon nañ ko amal doon jébbal ay ndongo yi gën a xarañ ci concours général yi ñu doon amal fii ci réew Sénégal yéenekaay yu bëree bëri xëy nañu tey jii daal di àddu jëmale ci réew mi quotidien ne président Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi ci yéeney amal ay jéego yu mucc ayib ngir bu ko defee nag ñu daal di gën a ñoŋal taxawaayub école sénégalaise loolee nag daañu ko jaaralee ci ay digitalisation intégrale programme yoo xam ne rek dafa jëm ci recrutement ñeel jàngalekat yi nag waaye fexe ba nu ñu fi jëlee lii di abri yéenekaay bi di peeko le de l'excellence ne président Bassirou Diomaye Faye nag moom ma ngay kañ lauréat yi nag ci seenub xarañteef ak ni ñuy jëmalee wàllu jàng meeg jàngale mi yéenekaay bi ne lu toll ci 410 ci suñu xaalis moom la ñuy mi dégagé parrain bi nga xam ne rek moom la ñu parrainé woon cérémonie boobee nag di professeur Mamadou Sangaré degré moom nag modèle la royukaay la rawatina taxawaay bi mu am ci domaine mathématique école publique bi nag jiitu na leen sànni karawaas bi dóor école privée jël bu ñu dootul laam-laamee te moo yëgle kaay bi ne public bi moom écrasé na bu baax baax privé bi édition bu bi ci concours général yi nag ñi yëngu ci wàllu enseignement public bi nag jël nañu raw gàddu gi ndax bu fekkente ne ci classe première bi nag 55 ci ci la ñu bàyyeekoo juróom 45 lauréats yi nag ñoom itam ci public bi la ñu bàyyeekoo juróom-ñetti kepp jugeeti ci privé bi président Bassirou Diomaye Faye nag moom ma ngay xamle gis-gis bi mu am nag ngir gën a jëmmal wàllu jàng jàngale mi génnee na lu toll ci 410 millions yoo xam ne rek da koo dugal ci ndajem démb gi daal di jël ay neexal yu bëri nag jébbal ko ñooñee ñu dippee ay karaak l'info yëglekaay moom itam xëyee tey jii ci kàddu yi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye yëkkati démb ca ba ñuy màggal ndongo yi nga xam ne rek ñoo gën a xarañ ci concours général bi ma ngay xam ne ni suñum réew dafa sox soxla ñu gën a renforcer waat lii nga xam ne moo di enseignement ci wàllu science ak mathématique looloo waral nag muy soññu élèves yi ngir ñu gën a bàyyi xel te soobu ci filière scientifique bi ni ñu gisee élèves yi nga xam ne rek ñoo yëngu ci wàllu scientifique bi nag gën a wàññeeku ci baccalauréat yi ñu weesu loolee daal dañu ko war dakkal ndax lu ko mooy daal ñu am jafe-jafe nag bu ñu bëggee ay boroomi xam-xam yoo xam ne rek dañuy mën a càmbar lu jëm ci nag wàllu souveraineté alimentaire wàllu numérique technologie ak sécurité ak ak yeneen enquête yëglekaay ne ko lu soxal concours général atum 2024 lañ koy célébrer ni lu jëm ci enseignement des sciences wax ci leneen mu soxal bés bi moom bi nga xam ne rek assises yi ñu ngi ko doon amal jëmale ko ci téeméeri fan yi la président Bassirou Diomaye Faye def ci bopp Sénégal ñoom waa société civile bi ña ngay samp laaj ne lan moo waral président Bassirou Diomaye Faye nag tontuwul seenub correspondance lan moo waral itam nag ba nëga ni si pacte ba ñu signé woon ci assise nationale bi nag ba léegi si àdduwul jëmale ca dellu di laaj gàtt lan moo waral seen collectif boobee nag kenn woowu leen ci réforme yi nga xam ne rek moom lañu doon amal jëmale ko ci wàllu yoon Mamadou Ndoye di xamle ci biir yëglekaay bi ne ñun daal xalaatuñu benn yoon ne nag nguur gi fi nekk dina def lu gën a li fi nguurug Macky Sall defoon 24 heures yëglekaay ni ko conclusion yi nga xam ne rek moo ci assises nationales yi ak recommandation yi nga xam ne rek moo jugee ci CNRI société civile bi nag ña ngay woo président Bassirou Diomaye Faye ci pacte bi nga xam ne rek moom la ñu xaatimoon Sud Quotidien fay lu ko ne pacte boobee nga xam ne rek dañu ko war a jëmmal mu jëm ci wàllu bon gouvernance gouvernance ak démocratie ñii di société civile bi nag ña ngay pressé Diomaye Faye collectif boobee ëmb ay mouvement yu engagé wu nag ngir ñu daal di jëmmal conclusion yi nga xam yi nag xam ne moo bàyyeekoo ci commission nationale de réforme des institutions ñoom nag jamono ji ña ngay samp ay laaj ci li nga xam ne rek dañoo jàpp ne dafa lëndëm ci seeni xel te nguur gu yees gi di ko doxee mu jëm ci engagement yi nga xam ne rek jëloon nañ ko ci wàllu bonne gouvernance démocratique looloo waral ci biir yëglekaay bi nag ña ngay woo Bassirou ngir ngir mu daal di appliquer boobee pacte lu jëm ci génnee président Bassirou Diomaye Faye ci biir conseil supérieur de la magistrature nag ñoom waa société civile bi nag ña ngay xam le ni ànd nañu ci àddu jëmale ci beneen yëglekaay mu di point actu tey jii ci kàddu yi nga xam ne rek moom la élimaanu jëwriñ bu Sénégal Ousmane Sonko yëkkati ci la xëy tey jii moom moomee nag di xam ni premier ministre bu Sénégal ma ngay xam le ni daal lu jëm ci ni ñu daan teree muuraay yi nag lépp daañu dootuñu bàyyeeti muy jàll gàddu yi nga xam ne rek moom élimaan bu jóoriñ bu Sénégal yëkkati na ko démb yéenekaay bi nag ne moom daal dafa mel ni rek ay avertissement la yoo xam ne rek daf koo yëkkati jëmale ko ci kii di Imam Dramé Ousmane Sonko moomee nag ma ngay xam ne ne état bu Sénégal dina yokk jéegoom dina amal ay taxawaay ci réseaux sociaux nag ba kenn dootuñ ko bàyyeeti muy def lu ko neex mbaa muy wax lu ko neex moom Ousmane Sonko mi ngi woo ñii di média yi nag ngir ñuy xoolaat bu baax a baax ñi nga xam ne dañ leen di invité ci seen ay plateau yéenekaay bi ne fi mu toll ngay joxoñ baaraam baaraamu tuuma ñii di taskatu xibaar yi jëm ci saaga yi nga xam ne rek dañu koy faral di dégg ak kàddu yu ñàkk worma yi ñuy nemmeeku ci biir réseaux sociaux yi tribune yëglekaay ni ko saaga yi nga xam ne rek moom la ñuy dégg ci réseaux sociaux yi nag kii di ministre bu Sénégal Ousmane Sonko ma ngay dalati ci kaw presse bi Les Échos yëglekaay ne ko démb kay ginnaaw bi mu dalalee nag ñii di lauréat yi nga xam ne rek ñoo bokkoon ci concours général bi ci la Ousmane Sonko daal di génne yat wi nag daal di xam le ni daal dérive yi nga xam ne rek dañu koy nemmeeku nag jamono ji daañu ci jël seen ay matukaay lépp daañu ko dakkal saaga yeeg kàddu ñaaw yi nga xam ne rek moom la yëkkati woon jëmale ko ci kaw njiitu réew mi nag kii di Ahmed Suzanne Camara démb def nañ ko sous mandat de dépôt jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram stade yëglekaay xëyee ni ki tey jii nag ne ginnaaw Lazio Bologne ak Wolverhampton West Ham ma ngay songu jamono ji nag kii di Boulaye Dia lamb la ñu koy jeexalee ak waa kër Modou Lo yi nga xam ne rek ña ngay àddu jëmale ci combat revanche bi nga xam ne rek bëgg nañu koo tëgg ci diggante Modou Lo ak Balla gay 2 yéenekaay bi ne fi mu toll ni waa kër Modou Lo nee ñu nag bu ñu bëggee combat boobee